ayca di leen bëggee bu baax a baax mbokk internet yi ah. comme ni ñu koy defee actualité làmb la ñuy topp yaakaar naa ne Mansour tepp tepp moo gën yuréet tey dafa jot ñu ngi fii jàmm gën kër Siteu tarkindaa bi taalibe Serigne Touba bi ah. ki nga xam ne Cheikh Rafa rek la yaakaar dañuy daal di dugg ak PV bi génn ci CNG xool lan la actualité bi làmb wax waaye lan la Siteu wax ci combat bi ñu naan dañ ko dara dox le 29 janvier di nga mën ne Papa Sow ñi yéeg bi lan la gis ci loolu. xale bi nga xam ne bu bu jógee jàmm nga ñëpp jug bu jógee ful topp ko mbooloo kenn du xam fu ñuy jóge waaye liggéey naan rek loolu liggéeyal doo ko fekk loolu liggéeyal doo ko am ah. aja mañ salaamaaleykum. maa ngi soo yegg si ñu fekk fi gars yi tarkindaay nekk fi ay ñoom Maama Lamine ay ñoom Abou Diassé eh kaay nuyu naa la. noo def. sant rek. wax ngeen. sant bu baax. champion mu ngi fi rek. di mu ngi ci biir. mu ngi bi. Mansour Mansour nañ dem. sekk a ngi nii ah le grand le dama koy béggee bu baax a baax Mansour ayca. foofu baax na ayca Mansour comme ni ma ko waxee ah biir kër tarkindaa bi taalibe Sëriñ Tuubaa bi <laughs> Tarkinda laa lay wax surtout nga bu wootee ñëpp ñëw asalaamaaleykum. may commencé nuyu Tarkinda yi ah yaay Kinda yi lu xale bi waxoon nee na bu xayee rek ñor na champion bi nuyu naa la. na ngeen def kooku sekk la dégg nga dama koy bëggee bu baax moom bu nee waaw Siteu dene waaw su ne déedéet Siteu noonu lay wax lu leer naa ñi dañuy daal di nuyoo rek après daal di toog xàll waxtaan bi waxtaan débat ko waxtaanee ko nu mu waree yaa mu gën a xam Aïcha Mansour doxala ah, Siteu lañ seet si tey jii am ah, Leewtoo ak ak Siteu champion bi nuyu naa la bàyyi nga nuyu internet yi. waaw salaamaaleykum ginnaaw ginnaaw ma sant yàlla junni si yonent bi sant sama ñaari di wax ne jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant suma sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan maa ngi koy sant bu baax Mbacke Balaye sa waaw di sant sama yaay di sant euh, jàmm gën ak li ko wër bi yëpp maa ngi di sant. sant sama xarit yi ma toogal muy Seck ñëng bale ak sama xarit bi maam Saliou di sant waa Gambie waaw yëpp maa di sant sant gars yi fa nekk yëpp ñoom John waaw beeg gars yi mu nekkal foofu yëpp Moussa Gambia Moussa maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di sant Abou Niassé di sant sama gars yi may àndal mm-hmm. Maama sant sant waa équipe Lamsar. mi simnaa nuun gidmaa nuun nuwaanaa leew séeréer rek mi gidmam nu mbiyanaama i an ga idutame i njeewo leŋ xa refeer na sereer i jaajëf Aïcha di ko nuyu bu baax a baax waaye du ma wax a Siteu ci bis bu toll nii te duma dugg ci kenn ci moom di Fodé li ma ko xam yàgg na yàggul bari na bariwul fàllu moo tax ma xam ko waaye dañ koy ñaanal li fi mu nekk gëna ko fi mu jóge suuf sedd ci kawam Siteu bisu tey jii lan lay def waaw tey mooy bisu Fodé tey mooy ñaanami bisu tey ji la génnoon àdduna waaw ñu koy ñaanal yàlla yàlla suñu borom xare ko àjjana yi kawe kawe kawe di koy wax ne moom si ñun la bokk waaw si ñun la bokk nekkoon kenn si ñun waaw ñu koy ñaanal nag lu mu bëgg ma moo xam waaw di koy ñaanal àjjana yi kawe kawe kawe kawe ñi fi des yàlla bàyyi leen fi wéral leen waaw Fodé daal mënuñu wax si moom waaw lu bari daal waaw mais Lissane daal ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko aljana yi kawe kawe kawe kawe. Mm-hmm. waaw. Aïcha loolu entre parenthèses balaa may yàq sama émission bi ah ñu dem ci li nga xamante ne nii su ma su waxee ci Siteu su ma waxee ci Fodé damay indil Siteu problème indil sama bopp problème moo tax bëgguma cee xuus bu baax. moo tax bëgguma cee xuus bu baax dañ koy ñaanal. aljanay si ca kaw a kaw a kaw ñi fi nekk ah mën a dund dund lu bëree bëri jaamu yàlla mën koo jaamuwaaleel yàlla ñu nekk ci mm-hmm. ci suuf si ah. Siteu damay dellusi ci Fodé tuuti parce que am na ñoo xam ne dañu mel ci Siteu sax ñi bind seen euh, seen tama yi Fodé lan la. waaw xam nga yaa ngi may laaj si koo xamante ne mosuma bëgg a wax si moom waaw parce que kenn la ci man boo xamante ne eh, sama tolluwaay ci moom ñu ñaan ñëpp suñ tolluwaay yàlla rek moo xam yàlla rek moo ko mën a seede aussi. du lu ñuy wax. Mhm. waaw te ngay wax si koo xamante ne nekku fi. dafa métti. Mhm. waaw mais li li ne suñu biir xol moo gën a rëy. Mm-hmm. waaw loolu daal mun naa ko wax mais ci kanam tuuti xam naa dinaa gën a développé ci moom. Mm-hmm. waaw parce que si même si li may wax moom am na ci part de responsabilité yu bari yoo xam ne ci côté am la. Mm-hmm. waaw dinañ ci dugaat mais dañ ko tëjee balaa ma yàq sama sama émission li nga xam te ne nii mooy événement bu mag bi àdduna bi doon xaar ñu koy xaar benn at ñaari at ñetti at. combat Siteu Papa Sow ñu jàpp ko la cinq décembre mu mujj fi mu mujj bi loolu amee yooyu nga nekk sa cumukaay lan nga waaw yëg-yëg bi ma am mooy yëg-yëg champion la am mooy li am am na jógewul ci man mhm. sabab lu ma ko li ma waroon def naa ko mhm. waaw Pape Abdou Fall nag muñal naa ko ba fi muñ yem mhm. fi gor di yem ak gor man yem naa ak moom foofu waaw mooy combat boo préparé mu am dara desul mu des quinze jours yàlla def Covid bi ñëw ñu d'accord Covid bi ñu jàppaat ko diggante bi ñu ko defee rek bi ñu ko bi ko annulé rek ak bi ñu koy jàppaat daanaka def na un an. Mm-hmm. ñu jàppaat ko ba mu war a ñëw deuxième vague ñëw mu des mm-hmm. quatre jours. Mm-hmm. deuxième vague ñëw. bi deuxième vague ñëwee. ñu annulé waat ko. ba bii nii ñëwaat ñu préparé waat ko. te yëpp préparation yëpp yow yaay dem ak sa yow say moyen. amul kenn Pape Abdou Fall du xaalis bu mu yëkkati jox la. li lay wax ne li yàlla dogal la lu yàlla dogal nag ñu waajal ko ba egsi fii. ñun sabab lu wuñ lu yàq làmb ji ku xam làmb ji xam ne ñun defuñu dara lu ko yàq. kon tey bu ñu egsee fii nii ba remplir suñu contrat. man côté bi may waxee mooy dégg naa lépp nag. li waa CNG génnee li waa keneen ak keneen génnee. mais man côté bi may waxee mooy man Pape Abdou Fall. damaa bëgg moom bu dee moom muy dégg sama xaalis bi moom moom man muy yëkkati ko jox ma ko. muy sa reliquat. muy sama reliquat. Siteu balaa ñu ñëw ci loolu rek ñu gis jouru combat wa changement bu radical ci Siteu. dañ naan ngi Siteu bu ñëwaan indi eeru xale indi ful indi fukk di jaar fii bàqu fecc fii indi ambiance boo xam ne ñëpp moo doon xaar jour J man sama ba j'étais étonné ndax Siteu bi mu ñëwee tey bi mu indi dal bi mu indi indi cosaanu séeréer. lu ma waral changement boobu ci Siteu. waaw dama am kilifa rek waaw nangu ñu yilif ma ma topp seen ginnaaw loolu kese moo ko waral ma xam ne doomu séeréer laa cosaan moo ma war ma ko loolu kese la waaw loolu moo waral ma indi cosaan bi waaw mais di sant daal man ci côté bi ma waxee. côté boobu intéressé na ma trop. dinañ dinañ ci ñoom mais dafa am xam nga public yi bokkul. public yi bokkul am ku ci nekk am na lu la indi woon ci Siteu am na ñoo xam ne xaar Siteu baaxu. ñu jël ñu dem ñibbi. am ñoo xam ne mhm. bëri Siteu mënoon indi am ñoo xam ne ambiance Siteu mënoon indi. Mhm. jour boobu Siteu rek dem toog kalu ruqam. Mhm. lan moo combat moo dawee woon loolu wala conseiller bu ñu la dicteroon pour nga bëree ko combat boobu. waaw wax naa la ko léegi wax naa la boo amee kilifa ñu yebal la nga amay xarit ñu yeb la. yow mënoo lu dul nga doxee noonu. te wax dëgg fa yàlla ñun tamit màgg nañ daal xale màgg na. waaw loolu man loolu laa mën a wax pour tënk. waaw peut-être waaw lu bari xeju si. Mhm. waaw kon dañuy tënk rek. léegi ñaan naa li duuf ci nag bi yëpp xeju ci cin bi. Mhm. ñu ñëw ci nga xam ne ba affaire bi amee. ñu ne kaawu Siteu moo a xeex ak Papa Sow gaañ na ko CNG woo la. Mhm. ba nga demee nga wax ak CNG ñi génnee PV. ñu ne maanaam ba làmb ji jeexee. Siteu amaat nañ ko 500000 ñu ne lu tax. ñu ne fanta ñu doon yàq si un point boobu lan nga wax ci wax. non sama fan si yaakul 16 yaakaar naa ko ku jël micro central bi di wax ak di sensibiliser nit ñi bu doon samay fan si dañoo samay fan si ñoo fa nekk. Mhm. man CNG dem naa fa keroog waxtaan nañoo ak man. Mhm. mais man ay kilifa rek laa fa gis. ay kilifa yoo xamante ne pour man seen responsable dañ koy jël ba mu mat set. Mhm. waaw mais man defuma lu yàq làmb. jimuma lu yàq làmb. CNG dañ ma war a sax delloo njukkal man pour man. waaw mais man côté bi may wax pour insister si mooy man sama victoire xaaratuma ko de parce que li tax xaaratuma ko mooy dama la waxoon ne ñoom ñoo ma woowoon ne ma dañ ma bëgg a jox sama victoire si diggéew bi di bi Pa Abdou Fall wàcc loolu ci la yàqu dangaa ngaa jàpp ne Pa Abdou Fall moom moo dindi loolu parce que moom la loolu laay wax moom laay teg toor bi mais man yooyu yëpp intéressé wu ma ay victoire yi non non man yooyu intéressé comme man remplir naa sama contrat taxaw naa ci diggéew bi ñu war ma jox sama victoire ñoom seen biir ñoom ma waxoon dañ may jox victoire bi Pape Dufal ñëwee wax ak ñoom mhm. ñoom ñu mujjee ne dañ koy def no verdict mhm. ma jóge foofu sangu sama galaañ génn bi ma génnee dem naa ci plateau te bi may dem palaato ku xool xam ne man bi may dem plateau dama sol yëre yëre bi ma sol yëre sponsorisé la mhm. kon man sama contrat rempli naa ko man nekkuma xale yaaku nekkuma business dama ci yàgg pour dama ci def pour benn fan wala ñaari fan te ñun ay jeunes lañ. Mhm. te Pape Abdou Fall dafa am benn moo bu mu doon utiliser. Mhm. muy man lépp lu may def am naa sama business. mun mhm. naa sama business maa ngi am business fu nekk. mais li ma bëgg mooy jàppale jeunes yi. jeune bu la muñal. ñetti at. ñetti at jeune bu la muñal. ñetti at dooli woo ko xaalis dooli woo ko dara. mu muñal la. bis ñëw mu ñëw bëri la. defal la estaat noo xamante ne. musul am musul am. musul am làmb sosoo ba léegi musul am. dégg nga ñi dañoo jaay ba jaay ay billets yoo xamante ne yow du sax année bi ay Morlo Landa Guerre. Mhm. ay Siteu guy gi. Mhm. loolu passé na trois ans. Mhm. nga jaay ko yaa ngi dégg. ñii dugguñu jënd seeni billet ba pare dugguñu. loolu yëpp alal boobu yëpp. yow nga ne danga nga ko bëgg a jël pour saisir si pour toog ci. non man loolu duma ko bàyyi. Pape Abdou Fall man xam la naa déglu. sama kilifa Maxime Bargane ñu def seen liggéey ak waa CNG. Mhm. gis nga buñ ci pare mhm. buñ ci pare mhm. man dinaa ko wax ban jour laa jël sama xaalis biir këram. reliquat bi parce que xam lu ma koy jël si. dama bëgg nga déglu ma bu baax lii may wax. dafa am kàddu bu ma waxoon damaa waxoon ne bu ma bëree ba pare sama reliquat sama muy vingt cinq millions. sama reliquat dama waxoon bu ma bëree ba pare sama xarit Fodé bi gaañu dama koy jël tabaxal si yaayam kër. parce que dañoo ànd di dund di ànd di ànd di ànd ba yàlla def mu jóge fi maa ngi moom ñoo doon tëdd si benn lal koo xam ne dafa bàyyi àddunaam yëpp pour man mu gaañu te baat bi ma doon wax mooy benn baat la ma doon wax mooy Siteu man bu ma dundee ba am kër bu ma dugal sama yaay wàccu naa ci àdduna yàlla def mu gaañu amul kër bàyyi ma fi man combat bi bu ma ko jëlee moom bokk na si ñi ma ko jëllu kon reliquat bii nii mu muñ ko pendant trois ans voyagé wu ma dewuma fenn toog fii di muñ li may dund gis nga combat bi saa ñu ko annulé li ma ci financé man na vingt millions. te Pa Abdou Fall du ma ko jox. ma def ko pendant trois fois. kon tey bu ma bëree amul lenn lu muy teg bët lu sama xaalis xaalis boobu moom ma ko ki ko moom mu ngi tëdd si suuf. te dama fas yéene tey moo nekk saraxam. te tey ñaanoon naa yàlla ma jot xaalis bi xool fan laa koy jëndal kër si jàmm gën. ma xa àdduna ñëpp xam ne Siteu kàddu bi mu waxoon jëf na ko. Mhm. xaalis bi soxlawu ma ko damay xooli li may am yi man loolu rek moo ma mhm. kon xaalis boobu bu ko bëggee jéem a teg bët benn ah wax naa max de dinaa ko jaral na ma nag lu nekk man mais mënaguma ci wax parce que samay kilifa joxaguñ ma si mhm. mais li mu mën a tënk rek. mooy damay jox sama grand bi nga xam ne moo yor suñu kàddu yor suñu lépp. parce que xol la ñuy waxee. moom mu ci lu bari. loolu rek laay wax. ay te Siteu xam naa instant bi tension bi jug na day jox suñu jantal gannaaw mu wax bàyyi Siteu xaw a tempéré wu tuuti sëñ bi maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu internet yi nga présenté wu. Eh, soxna day maa ngi lay ziar maa ngi lay jox sa wàccuwaay. Mhm. Eh, maa ngi lay bëggee eh, maa ngi nuyu sa caméraman yi di nuyu Mansour. ak ñi mu àndal di leen ziar di nuyu axlu làmb mhm. maa ngi nuyu axlu làmb di nuyu tous les sénégalais. et di nuyu bépp jeune et di nuyu bépp jullit bu nekk ci dëkk bi di nekk ci tund bi di gërëm nag borom daaru salaam sëñ Sidi Arxuraan et bi jàmm gën la moo xuus jàll te kenn gungewu ko fi ko sëñ Bamba tegoon ba tey jógu fi Mbacke Bala ay sam ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziar di nuyu nag samay rak ñi nga xamante ni bii nee naa ànd ba lay neex saf doomu ndey mm-hmm. ku ci mel ni Abu Ndiasse mënatoo ko wax kii xaritu Siteu la kii doomu nday la sincère ak honnêteté lay dund mbër mi. et maa ngi lay ziar mbër la gladiateur au cœur de lion bu jàppee du bàyyi. un grand champion un grand ténor de la lutte sénégalaise. et maa ngi nuyu ak lamb aussi di nuy sama rakk yi et ñoom bu laal ñoom Mama Lamine ñoom Chérif ku ci mel ni Gallo. et Cité Junior di nuyu nag suma xarit suma nit borom teraanga. maam Zal borom Gambia maa ngi lay ziar Zal la jox sa wàccuwaay. noonu la sa tur bi neex na loolu dañ la dañ la dañ koy bëggee bu baax a baax balaa ma ñëw ci Siteu wax nii décision bi CNG jël ndax nga ko gisee. waaw décision bi CNG jël euh, li ma ciy mën a mottali ci samay kàddu mooy nit da am kilifa. Mm-hmm. nit da nga am kilifa et xale bi màgg na am na kilifa am na staff am na ñu koy yéer. et Père Max de passage maa ngi lay nuyu kooku nee naa ko dootul manager mm-hmm. kooku papa kilifa la. Mm-hmm. écrire lamsaar dégg na tolluwaay bu ne ah. toll na fu ne père Max bi mu jàppee ba tey bàyyiwul CNG seen xalaat lañ demee. seen xalaat la ñu demee et li may sant yàlla ci 5 décembre su mbër ma dooroon bu mbër ma chargé woon bu mbër ma yoroon begu naaw naaw tarkindaa yi jógati nañ. mbër dafa wax ñaari kàddu yoo xam ne dafa war a mën a véhiculer benn message boo xamante ni bii et kenn ku ne war nga cee jot tarkindaa am na succession curkindaa curkindaa yi rax jeunesse bi ñu ngi yàq làmp turkindaa mooy lan. tout à fait le mot tarkindaa boo ko déggee kooku wàccuwaay la mooy Baay Faal yi doon liggéeyal sëñ Bamba ak góor yàlla yi nga xam ne nattu dal na leen caabi féete leen ginnaaw ñu nangu seen pen jàpp te teew bàyyi tarkindaa ci gàttal pour ma tënkal le mot li tubaab bi naan il ne faut jamais fuir ce que l'on est car votre destinée vous rattrape toujours. tarkindaa mooy ku dul bàyyi kuy jàpp ci ngor kuy jàpp ci loyauté kuy jàpp ci dignité. kuy jàpp ci honnêteté tarkindaa gi doon curkindaa nag wax nga ko curkindaa wax nga ko parce que laaj nga ma question boo xamante ni bi soxna Mbacké ça me fait tellement plaisir et que ça me va droit au cœur curkindaa yi moo ñuy infiltre gone yi man bu ñu demee bay stigmatiser Diamaguène légion d'intervention de la gendarmerie est tout près le brigade de Diamaguène Sicap Mbao est tout près de passage mooy nuyu monsieur le maire Coumba Ndoffène le nouveau commissariat bi nga xamante ni bii l' inspecteur de police ba lañ ko inauguré ak le ministre de la justice mu ngi mel ni tey ban insécurité moo am jàmm ban banditisme moo am jàmm gën paroisse baa ngi nii le cardinal est tout près suñu dëkkandoo association des jeunes chrétiens de Diamaguène ma leen di nuyu de passage di leen baalu àq ñetti at metti na ñu baara mbedd mi teewul ñu ngi ànd ak seen éducation de base ànd ak seen sincérité ak seen ngëm yàqaluñ leen dara yàqaluñu dara curkindaa mooy ñiy rax gone yi mm-hmm. laaj nga ma lu ma neex man bu ñu taxawee tey ne insécurité à Diamaguène fii la juddoo fii la ñu màggee fii la ñu am mm-hmm. ban insécurité moo am Diamaguène bi ngeen di ñëw fu ngeen wàcc Diamaguène mm-hmm. ay caméra ngeen yor trop cher bien habillé dañ leen agressé dañ leen ërtal Diamaguène mës nga fi dégg ñu rey fi nit mas nga dégg ñu rey fi nit mës nga dégg ñu agressé fi nit baa ñu violé fi nit bis du tuut nag borom lay tollool maa ngi nuyu Pape Abdou Fall le manager le manager bul bàyyi làmb demee nii boo xewlee di nga loué sa stade loué la fay dem woo say caméraman woo la presse nga daakantal ko ci xew boo xewlee da ngay loué say chaise loué say bâche nit dina la ndawtal te xamuloo ko mbooloo moo demee noonu mbooloo moo gis loxo iblis sa gëcca le satan il vient de tout près le 5 décembre xoolal ni mu demee Sénégal nañu wax dëgg wala senegal dañu ragal a wax dëgg wala boog man su ma neexee ma ne ko reconnais plus mon pays dans l'Afrique nañu bàyyi di wax di ragal a wax dëgg bu nu ànd ci jeyante wanante ginnaaw jëwante mm-hmm. mbër mi bi papa di chargé yor beggu naaw naaw yor gàllaaj xam nga ne ko receb géer xajul ci géwal mm-hmm. beggu naaw naaw boobu bu ne woon put ci crâne u jili wala ci bëtam crime du am mm-hmm. mbër ma ba ba papa di chargé fu mu nekkoon. ci biir enceinte ànd ak Abu Ndiassé. ànd ak Guèye Mama ànd ak xale yi. di sotteekoo gàllaajam di def contrat bi mu remplir ak CNG. war sa naaw la lu ñaaw la. ñaata at lañ dàqantal komba bi. 3 ans. yéene bis ba ndem si yàlla si. dee du nu miti ndax ku juddu tooñ nga dee. foo de fa mu nekk yàlla na ko gënal fii. et borom sëñ Sidi Alxuraan taxaw ko nag ñu denc ko denc jullit denc murit yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko te xaare ko àjjana te yeexanu li mbir mi wax noonu la demee yaayam keroog gis ngeen ko ci émission bi amoon ci suuf ñëw na wax ak ay bokkam ñoo bokk juddu man bu ñu demee bay stigmatiser mbër mi États-Unis c'est un grand pays États-Unis c'est un grand pays bu ñu demee am ba am sa sincérité am sa confiance jël seen nationalité jox la ko dugal la ci seen sport MMA ngay bëri ak ay ngay combattre ak ay champion de pois lour no on arrête Sénégal ban dëkk la ñu nekk yaakamtuwuñu lu du defet am ñu interroger le TikTok l'internet yàq sa der saccagé la na ñu bàyyi xel suba image dafa am solo na nañuy waxante lu rafet na nu ànd ci yàlla comme ni tarkindaa yi àndee ci loolu laay dugg rek xam nga du ma ko laaj Siteu ndax saabu du fóot boppam. Mhm. keroog stade ba ba njëngoo ñu naan si Siteu Siteu la dafa mel ni. Mhm. adduna bi yëpp a nekkoon stade ñee ne la phénomène jógati na. Mhm. waaye ci loolu bi nga waxee dañuy indi inconvénients yi. dañu naan Siteu buy bëre day am. agression day am. léegi lépp dañ ko jël jël ko ci ndodd gaadam mooy phénomène bi yéen en tant que yéen ngeen nekk ci wetu Siteu lan ngeen gisee loolu. très bonne question que vous m'avez posée kontaan naa trop soxna Mbacké et mbër mi ku ne xam na ko. bande du toog ci décor bi ah voyu du toog ci luxe bi voyu du am nit ñu baax ñi ku ci mel ne maam Saliou un grand monsieur en Gambie liggéey ak Yaya Jammeh ci armem ak ci ay garde protocole am liggéey bu doy waar bu am muccuwaay jour ji mbër mi bi mu nekkee John Waar il m'a communication dafa am solo nañ koy bàyyi xel mbër mi bi mbir mi di am lillahi wa rasuli on interroge les caméras et l'internet kan moo chargé c'est juste une question que je vous ai posée mais combat doon na fi tension ba tey bés bu nekk am na Sénégal Modou Lo Balla Gaye nan la demee weccante nañu kàddu yu ne te dañ ko bëri ci honnêteté pourquoi charger aller voir les tambours majors l'erreur est partie de là l'erreur est partie de là Pape Abdou Fall def na li mu war a def kenn ku ci nekk jël na teg na jili bi mu ñëwee jàkkaarloog Baye Demba Ndir maa ngi koy de passage ngéwal du nuyu suma yaay Seck Diadio Ngoné nee naa ko fañ ko tegoon ba tey jógu fa ma revenir sur les faits Siteu bi muy touche jàkkaarloog Baye Demba Ndir jili dafa déplacé wu ne Baye Demba sama mag nga sama bokk nga ñoo bokk aar bi géwale jotante wunu mbër maa jóge fële ak i tëggkat ya mais mais mais mais image boobu fu mu nekk ci internet wala lamb ji dañ ko bëgg soppi marché yëpp sa jëkkër bu defet amee ñu taxaw di xastante banni doomu aadama la ñu wax ñoom bokk maam aadama ak awa su ma la xasee xas naa sama bopp àdduna image la ak profil y a des gens civilisés des gens nobles des gens normaux des gens dignes des gens travailleurs xale yi ngay wax mooy les tarkinda dama la ko ñaan lillahi wa rasuli ngir yàlla viens avec moi l'ambassadeur de la jeunesse je suis son porte-parole dimbali ma ngir yàlla nga ñëw ànd xale yi nga ñëw fi digg bëccëg ñee nga yor seen i calèche di liggéey ñee nga nekk ca marché bu ubbi seen i magasin ñee nga yor seen café Touba di ko jaay teraanga buñ ko xebal doomu aadama xale yi xamuñu lu dul liggéey et que bi dama leen di gën a ñaaxaat àdduna yàggul ndongoloo wax na ko dooley góor ndaw la soo dee gone patuloo laaj woo doonatoo gone kon xale yi sóoraale leen ëllëg football ba nag yàqu na lillaahi wa rasuuli xam nga fi may waxee mbooloo moo gis loxo seytaane ngi ci mhm. keroog làmb ji si te yàqul làmb xeexul mais keroog man mbër bi ñu waxtaanee ñaari baat ci salle bii la ñu toog man ne ko mbër mu ne ma grand bam na ma naam mun ma ban comportement nga gis man ne ko dal nanu dal xoolal dal bi mbër mi andi ci làmb ji professionnalisme galanterie beneen Siteu nga gis yaa ko wax léegi dal bi xeex bi di am fu mbër ne mu nga ci géew bay soote koo gàllaajam papa sama grand bët li koy gaañ du ko gis pour man waroon na am charisme ak galanterie génn ci écurie bu toll ni Fass. suma papa Moustapha Guèye dar la. ay grand ténor ay Moustapha Ñing encadré la motivé la yar la nga màggee Fass bés boobu warul woon yàqu. c'est quelque chose qu'on pouvait éviter. pourquoi charger aller voir les batteurs. ñu jàpp ne. Euh, l'erreur vient de ñoo ñoo ñoo bëggoon yàq làmb ci yow lan nga leen di wax. mën nañu waxtaan ma wax la dëgg. dañuy waxtaan en natt ko ci sa bopp natt ko ci man. tey jii ku yoroon ngànnaay daw jub si ma nooy def boo riposté mu insister. légitime défense coow lay doon légitime défense. jiili fan la nekkoon ci ginnaaw du xol la xale yiy tëgg. papa chargé di waaxu di daw di ñëw mu kar ko dogaale ko mu xàcc beggu naaw naa boobu mooy bëtam bu fa doxe woon silmaxa tama yee mu yaakaar quinze ans. xanaa loolu mooy kon donc li président di xeex moom la tey moom la ñuy tey tey tey tey dënd ci àddina. emploi des jeunes. mbër mi c'est un chef d'entreprise. c'est c'est pas n'importe qui. c'est un grand monsieur un grand champion. demal nga tàppe internet nga xool li mu def États-Unis au niveau de l'Amérique au niveau de New York au niveau de Los Angeles au niveau de Miami au niveau de Las Vegas nañu waxante dëgg waaye s'il te plaît war ma banditisme ci ñun. Tarkinda international bëgg naa ne bu baax am na yu bari mais du ma tudd seen tour de ngeen di am bës si kanamu Siteu CNG ndogal. Mhm. ñëpp dégg nañ ndogal bi. ñu ne batterie mi teel nañ ko 3 ans 3 ans 3 années successifs yoo xam te ni du tëggal Siteu lan la leen def loolu. kon ki ñu tooñ lañ teg duuma ki ñu tooñ àkki ko tey ku ñëwoon seen kër àkk la tey nooy def doo coow mm-hmm. ki ñëw àkki si lañ teg ay tuuma tey fukki at ak juróom mm-hmm. jëli suma rakk nee naa la jàppal xamoo lu dul aar ànd nga ak Thiat Seck et te te un batteur extraplanétaire nga fa mm-hmm. kon na jàpp te bàyyi 15 ans yi métti na ñun am nañ ay bokk am na nañu staff man dama am lu ma naxari sama àdduna lu jëg ñu indexé ko tarkindaay vagabondage tarkindaa mbooloo moo gis am na la jaabul dañuy waxtaan waxante dëgg xoola manifestation yi ci amoon xoola manifestation yi ci amoon ba ñuy yàq dëgg bi ku dul politicien jóg nga xale yi nañu delluwaat ci yàlla seen alal la ñuy yàq ñun ñu ñuy infiltrer on a parlé avec le nouveau commissaire de la police jël nañ suñuy mesure jël nañ suñuy principe su ma mag su ma nit suma ma doomu ndey xam na boppam waxtaan nañu léegi ci suuf le commandant il a pris ses dispositions xale bu ci sàkketoo sita bu tuuma dal ci sa kaw demal nga layoo sa problème ak say bokk ñun dunduñu banditisme dunduñu vagabondage kër sëñ Sidi Alxuraan la ñu xam muy sunu zawiye di sunu daara jaamu yàlla la ñu xam liggéey lamb ji nag li ko yàq xam na nu ko sénégalais xam nañ ko où la raison on le dit dernière question foog ma laaj ko ko pare ngeen pour pour pour bëri Papa Sow le janvier wala damay manager wala porte parole laa de yow génnal ci ménage maa ngi ñëw léegi léegi kon donc dañuy bëree bés ci beneen bés. le reliquat de 5 décembre anam yaayu Fodé euh, sama xarit pour gàttal wax ji dafa am fu ndaw fu ma bëgg a daaneel ak yow. Mm-hmm. jullit buy dund war nga bàyyi xel ñetti fanu bàmmeel àdduna yàggul. le temps le vite et que les années les années filent vite le temps file vite et que il ne nous attend mooy li américain yi di wax many make the world go round c' est l' argent qui fait le monde. nga ne ko. many make the work go round c'est l'argent qui fait bouger le monde bu ñu tardeel suñu bopp Pape Abdou xam na li mu warloo ak xale bi ay këyita leen boole ay këyita leen di waxantewaat Père Max est xale bi am na staff am na ay bokk am na manager mm-hmm. bés boobu nga wax la 29 noonu nga ko liiree ci làbb ji mm-hmm. tey ce matin noonu laa ko liiree mm-hmm. nañ wax ci le 5 moo ñu ñor mooy li fi ne ayca tega foofu sa baaraam ma dellusiwaat ci champion bi du fa hmm? jóg ñu ñu ñu waxtaan bi champion bàyyi nañ ko mu soufflé xaw a dal tuuti ndax sànq tension bi xawoon xaw xaw xawoon na jóg ah. si foog mu sànni ci kàddu parce que moom mooy le prince yi du ñëw yow nga nekk jeune tàmm di ànd ak ñooñu lan la loolu di def. waaw loolu loolu man egguma sax ci ci domaine boobu lu masawu ji waaw di koy wax ne ñun ak moom. deret moo ñu boole. te bu yàlla di def jàmm. Mhm. waaw dee rek moo ñu tàggale. Mhm. dee rek moo ñu tàggale man ak Djily Mbacké. Mhm. waaw mais man li tënk rek tënk ko mooy. man man kenn moomu man du ma kenn waaw. lenn li may wax muy tënk ko mooy. Mhm. Pape Abdou Fall na ma jox sama xaalis. Mhm. na yëkkati sama xaalis xam ne ay kor la jëflante tagg na ma gudd bu ne. Mhm. tagg na ma bëccëg bu ne. gis nga lool noonu mu doon wax na ko continuer. dégg ma waaw man sama xaalis man xanaa lu ma moomul. lu ma moomul lu ma moom man. lu ma moom lu ma wóor ma ne lii maa moom. non si dama si dëgër boobu de waaw. ci xaalis xaalis boobu la ñuy wax. waaw ñu ne tant que bëre woo reliquat bi doo ci jot. ñii ne est-ce que duñu si Siteu mu bëre yow la nga gis ci loolu. lu jaarul yoon kon loo ci dolli nit. dëgg moo dul romb noonu Pape Abdou Fall bu soxlaa sama combat su soxlaa sama combat na doxaat ba samay kilifa waxaaleeg ñoom mais dama la ne lii ma moom alal bii ma moom na ma ko jox ma def ko fi ma ko war a def sama xarit moo gaañu ma yéene ko ko pour tabaxal si yaayam kër na ma ko jox si ngir yàlla war rasul parce que man maa ngi déglu suma kilifa mag sa Mbargane maa ngi lay nuyu di lay sant di gën a feccali sama kóllëre sama diggante ak yow di lay wax ne man awma ku la sut mënuma am ku la sut si àdduna yow rek laa am parce que yaa ma yar bi ma nekk xale ba ma lay jàpp ba may jóge lamsaar nga yëkkati sa 2000 di ma koy jox muy ñibbi di koy reeree loolu fàttewu ma ko kon yow rek laay déglu mais dama la ne sama xaalis man paa Abdou Fall bu ma mag si joxee ndigal dinaa la wax ba jour laa koy jël si ba ma koy ndilul hmm? parce que li tax li tax ma li ma ciy def moo tax ma ci ngoy dëgër ci bopp sama xarit Fodé ñoo ànd xamul kenn man rek la mosa xam ci àddunaam mosul dund bànneex ku mu mos xam ci àddunaam Siteu la Fodé mosul fanaan ak doomu aadama xamul kenn Fodé bu ñu tàggali ko rek damaa dem États-Unis bàyyi ko fi. kon kooku du ma gën a gore kooku gaañu de yàlla suñu borom jëlee ko fi rêvam yëpp mooy fu mu dugal yaayam yaayam di fay locataire ba tey man kooku man yéene bi ma mooy ma jël xaalis yi tabaxal ko ci kër su ma ko defee dafa mel ni sama xarit bi def na ko kii def na ko keneen ak keneen def na ko yow loolu nga bëgg ma ko xañ yaa ngi bëgg a yàq sama àdduna te sama àdduna man yow doo ma ko yàqal bu dee yaa ngi may dégg nga jox ma li ma moom man xale laa ndaw laa waaw te bul yàq sama àdduna. ayca li ñëpp di laaj moom non c'est foog foog nga tontu li ñëpp di laaj xam naa lool xam naa lool su ma la toppee fii di nga di nga jooy ma jooy émission bi yàqu. 29 janvier est-ce que c'était dina ko bëri. non man bëriwuma loolu wax dëgg fa yàlla man man li may wax mooy sama lii laay wax. soxla si man xale laa de mais ku tiñ laa ko am fulla sama bopp la te sama kàddu duma ko tëral di ko yëkkatiwaat mosuma tagg nit suma ma xalab ko non non xaw ma loolu dégg nga man benn baat rek laa xam si nit mais dama la ne maa ngi déglu sama kilifa Max Mbargane mu def ak waa CNG lu mu war a def ak ñoom lan ngay wax tarkindaay tarkindaay lu dul sant leen di leen wax ne deret bi daw ci man mooy daw si ñoom deret bi daw ci man mooy daw si ñoom te di leen wax ne képp kuy tarkindaa wala ngay doomu jàmm gën nga defaraat sa toogaay. Mm-hmm. te nga xam ne am nga sas ñun jàmm gën gi ñu dëkk xam nañ ñu fi nekk de. Mm-hmm. xam fier xam ko moo tax ñu fier si xam ko moo tax ñu ngoy xam ko moo tax ñu jàppante te mënuñu te ñu bàyyante. Mm-hmm. mënuñu bàyyante ñun jom ay jàmbaar lañ ñun ay xale yi am jom lañ. bu dee lu ñàkk fayda mooy maye kon yow ñun duñ dem bu dee alal jàmbur mooy maye kon duñu am dégg nga nañuy xool lu yenu maanaam ñu koy wax. waaw man dépassé naa sax làmp mais dama la ne sama alal bii nii ku ma ko xañ. dafa mel ni xañ nga ma sama lépp sama àdduna. parce que geste bi ma ci wax dama joxewoon sama kàddu bu yàgg. am na doomu aadama yoo xam ne taxaw nañ ne waaye Siteu du ko def. am na ñu taxaw ne du ko def te ma am gëm-gëm boobu man ma xam ko samay xarit yi ma toog xam ko ñi nekk ay kilifa. am ay ñaari jabar bàyyi seen lal pendant deux mois depuis màggal Touba samay xarit duñ si lal parce que kenn ku ci nekk yaa ngi ut sell sa bopp bëggoo sax lu yàqal si te yow ñooñu dañ maa mun a gën a gore ñooñu du ma nangu ñu gën ma gore yaa ngi dégg baat bi may waxaat mooy di waxaat ne Pape du Fall yow laay waxal waaw sama avenir mu ngi sa loxo waaw kàddu yi leer na li ñuy naan li li duuf ci nag yëpp xajul ci biir cin bi c'est li ma xam moom lijjël na problème ak Pape Abdou Fall li bëgg leeral adduna yi xam ko Siteu mës gis avant tey. ñoo ngi soo gisante. jàmm soo gis. waaw soo gis. <laughs> d'accord loolu rek leer na. Ah. pour am na ñoo xam ne ñu ngi wax wax yi mu may fekk si ñu ngi bind bind yi man maa ngi koy gis. ngeen nit fii ku fi nekk am nga koo bëgg ku fi nekk am na ku la yàlla booleel Siteu mosuma koo ñaan ñaari dërëm mosuma koo seet mosuma teg bët mu ngi soo gis tey. Mm-hmm. yàlla nag mooy boo nit yàlla mooy def nit nga gis nit bëgg ko loolu kenn mënu ci dara mais am na wax yu ñu ñaaw yoo xam ne wala yu salte yoo xam ne boo ko jël di ko wax ci nit ayda comme ni ma ko waxee ah damay tëdd ñu ta tàggatoo ñaanal Fodé fi mu nekk gën a ko fi mu jógee yàlla xaaree ko altine yu kawe kawe ni ma ko waxee gars yi affaire bi liggéey la job def sa ñoom ñuy liggéey nañ fexee liggéey lu tax ñu may sut mais bu ma liggéey ñi jël samay der di ko jéem a saltel ci dara kii su ma ko bëggee moom taxul yàlla moom moo tax mais bu ci kenn jaar pour jéem a détruire pour yàq sama carrière damay liggéey ni micro bi ci laay liggéey ci lay tedd ci laay teral sama yaay teral ci sama bopp teral ci sama njaboot ki ma bëgg mu bëgg ma moom xam na man xam naa yàlla xam na Siteu nag moom dama koy bàgg yàlla moom xamut waaye yàlla xam ne te bu yàggee sax dina comprendre waaye gars yi nañ bàyyi yàq bi ah xam ne fii ñu ñëpp ñoo ko moom bu kenn bëgg a defal sa bopp di ñaawal keneen nañu liggéey ku ne liggéey yàlla dina àtte noonu laay def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 point lambdiaspora point com